asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 21 décembre 2020 dañuy ñëw ak ci yëglikaay yi suñu lamb li xëy dooree ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fësal ñaari mbër yoo xam ne ni daal ku ne xam ne a jongante couronne moom mooy rey couronne roi des arènes ba bi nag dafa xëy tey ñëw la mu ci jublu nag maanaam démarrage saison bi maanaam saison bi kañ lay commencé mel ni ki nag fi mu nekk nii moom lamb ji yëglikaay bi ne na boo sàgg que ne duñ dem ca organiser ko ci wàllum huis clos maanaam organiser ko nga xam ne bu keroogee daal seetaan moom maanaam kenn du ñëw ca bi ca arène ba toog di seetaan huis clos maanaam tëju yëglikaay bi loolu la xëy tey samp laaj ndax ne est-ce que duñ fa dem mel ni ki nag loola am na ñoo xam ne tontu nañ ca Gaston Mbengue mi nga xam ne nag yëglikaay bi ne na moom mooy le donking des promoteurs wala boog de l'arène moom la mu gis daal ne lii di huis clos moom nekkul pour làmb Gaston moom loolu la jàpp nee na waxi huis clos moom jërul sax di ko yëkkati di ko wax ndax daa jàpp ne loolu di solution mel ni ki fàllu Ndiaye tamit des promoteurs tamit jiite Ndiaye production moom tamit wax na ca wax jooja bañ ko laajee moom daal la mu xam ne daal nee na nañu jéem a seet nuy organiser làmb ji jéema a respecter mesures barrières yi pour ñu mën a bëre bu ko defee jàmm na ñooy moom fàllu Ndiaye daal gis-gis booba la amee ba tey moom ca mbir mooma keneen koo xam yëglikaay bi ñëw na tey waxtaan ak moom muy Jax Jax di ab promoteur moom tamit maanaam daal 27 millions ya nga xam ne moom la ñu jële boog ci bi état bi dimbali la nga xam ne moo di promoteur yi nga xam ne ñu ngi ci làmb ji nañ ko joxee daal daa mel ni Jax béggu ca 27 millions ya daal mu génnee ka nga xam ne moom mooy Pape Abdou Fall moom yëglikaay bi xamal nañu ne daal lu toll ci cinq million da ko ca am te Jax nag jàpp na ne la nga xam ne nii daal moom la ñu def jëmale ko ci Pape Abdou Fall daal daa jàpp ne mbirum injustice la parce que nag jàpp na ni mbir ya moom warte doxe noonu kon ku bi léegi bi rek da nga gis jax la mu wax ca mbir yooyu nga xam ne ni moom moo am ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb rek ba tey ci kaw xëtam mu njëkk rëg-rëg moom la mu xëy daal di dig guy gi mooy seen diggante daal rëg-rëg moom jàpp na ne dóor mu daanu dàqu ko ca ne na ko yebu xaar ko ca mën na caa am keneen koo xam ne tamit daa mel ni mu nga xëy di dànkaafu wala muy wax boppam muy elas cuun ma nga xam ne moom mooy agent wu Tapha Tine moom daal jàpp na kii di moom mission commando la gàddu jëm ci kaw Boy daal mooy seen digganteeg Boy Niang moom loo ci mën a dégg dana metti te dana tar ndax seen mbër moom mission commando lay demee mu mel nekk ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ak Bamba Mbuub ma nga xam ne tamit moom moo jiite fiis di ki nga xam ne daal fi mu nekk nii la mu taxaw ci maanaam lenn la fexe ba mbër yi nga xam ne nii ñu ngi ci làmb ji ku ci mënta bëri itam am sa métier moo xam ne da nga ca tedde mel nekki nag ajjuma ji nu génn wala samedi boog mu ngoon fa nga xam ne moom moo doon ca mbuur ngir nag fexe mbër yooyu tamit gañe ci la nga xam ne nii moom la ànd tey di ko defal maanaam mbër mu am métier métier moo xam ne bu bëriwul tamit mën caa nekk da ca tedd moytu gaal ya ak yu mel ne ki noonu keneen koo xam ne ni moom la mu bëggoon maanaam lambi gambi ja mu jiite ko maanaam fédération ba nekk président ba loolu nag daa mel ni ki daal jamaïcain bëgg-bëggam booba waa gambi gantal nañ ko xamal nañ ko ne ko daal yow moom pare woo ngir jiite euh, li nga xam ne mooy fédération bi wala lu jëm ci lambi gambi parce que nag la ko ko yóbbee lenn la maanaam ab promoteur la boo xam ne day tëgg ay lamb di organiser ku ne xam na ne am na combat yu moo tax nag ka xam xam ne ni daal ñoom ñoo di waa Gambie moom wax nañu damay kenn la nga xam ne moom la war a man a def wala boog mooy ay droit waaye pour jiite moom xamal nañ ko ne loolu moom bu ko xaar ndax mënta nekk fi nga xam ne nii moom mooy fédération bi kon di am ba des daal mooy jamaykee moom du jiite fa nga xam ne moom moo di fédération gambien ba nga xam ne moo yore wàllum làmb ja ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb bu nu demee ca biir nag yëglikaay bi ñëw na tey ci nga xam ne mooy CRC nga xam ne moo nekk ca Thiès la nga xam ne nii nag wala ñi ña nga xam ne ñoo ko bëgg jiite daal daa mel ni seen ay CV inspectrice ba nga xam ne moo nekk ca région de Thiès yoolu wàllum sport ba laaj na leen seen ay CV bokk na ci Thierno Ndiaye ak Babacar Diop CV ya daal moom loo ci mën a dégg laaj nañ leen ko mu mel ni ki nag ba tey bu nu continuer ci yëglikaay yi dañuy dem fa nga xam ne moo di record record tamit ñëw na ci wàllum covid 19 ba ak li nga xam ne nii daal moom moo di organisation lamb jaag yu mel ni ki noonu ba tey moom record daal ñëw na ci lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer record ñëw na ci loo xam ne tamit moom mooy fusion bi ñu fiy wax diggante fas ak la nga xam ne nii moo di Ndakaaru Forza numéro un moom xëy na tey wax ca mbir mu mel ni ki noonu ba tey leneen loo xam ne moom ñëw na ca moom mi nga xam ne moom moo di record maanaam daal mook suñu lamb yëpp ñëw nañ ci muy Boy Niang boo xam ne daal suba dafa woote conférence de presse fa nga xam ne moom moo di ca Pikine tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu mel ni ki ba tey bu nu demee seen amateurs tamit démb daje woon nañu daal doon defaraat seen bureau doon waxtaan ngir xool nañuy jaar tamit ba seen mbir ñu tegaat ko ci aw yoon ngir ngir mën a dox nag dem ca kanam ci njiital seen président ba nga xam ne moom moo di góorandooy loolu démb nga amoon fa nga xam ne ni moom moo doon ca jàmm gën waaye démb tam daal daa mel ne am nañu doon fêté seen ay anniversaire mel ni ki Fallou njaay borom Ndiaye production da doon fêté anniversaire am kon fallu daal promoteur u làmb boobu lambaay lambaay bi happy birthday to you bés bu dellu si moo neex yàlla na nga ko yàgg a feete démb la woon xule fallu Ndiaye borom la 20 décembre waaye Asi Diagne itam mu ngi doon feete anniversaire am fa nga xam ne moo di ca Mauritanie Nouakchott kon di ko wax happy birthday to you moom tamit sama xarit boobu Asi Diagne borom la 19 décembre. kon mbokki internautes yi yi maa leen di bëggewaat di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen. tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi leen di ñaanal yàlla ah, semaine bi ñu dugg nii mu nekk semaine boo xam ne semaine u jàmm la semaine u semaine boo xam ne ah ay xéwal rek lañ ciy dajal te loolu itam dañu ñaan yàlla mu continuer ba faw rek di ko ñaanal ñëpp tey nag lundi 21 décembre la ñu ne 2020. ah bu ñëwee ci yëglikaay bi di suñu lamb xëtam mu njëkk tey démarrage su ji activité sportive yi rawatina suñu lamb ji nga xam ne daal fi mu nekk nii xamun fu nu jëm ñu ngi ci guddi gu bët setagul huis clos ba nag yëglikaay bi na ASK waaw ndax mën naa am maanaam organiser xulle te kenn du ñëw seetaan si maanaam mbëre doo nga fay ne ñoom ñu ko war a bëri ak ña àndal boog maanaam huis clos mu mel ni ki nag loolu bi mu amee wala bi samp bi yëglikaay laaj bi kenn wala am nañu ci seen kàddu wax ci bokk na ci Gaston Mbengue moom daal la mu gis moom jàpp na ne loolu moom du solution moom jàpp na ne huis clos moom jëru sax di ko que daa jàpp ne du solution Fallou Ndiaye tamit la mu nañu jéem a fexe organiser wu maanaam fexe ba làmb am ñu jéem a respecter mesures barrières yi loolu nag soo ko déggee kon ñoom promoteurs yi huis clos arrangé wu leen te effectivement huis clos arrangé wu leen parce que nag soo bëggee dégg-dëgg jël ay dizaine de def ko ci làmba di xaar ay ticket ak yeneen revenu nga ñëw def huis clos directement su keroogee moom defe naa ne boo tëbi tëb def ko mën naam boo ca duggee boo ca génnee du neex te loolu duñ leen ko yéene parce que ñoom ñooy bëri làmb yi promoteurs yi kon foofu kay li ñu mën a wax mooy état du Sénégal bi nga xam ne moom mu jiiti réew organisé wu parce que ci réew mi lañu bokk parce que des dangay da ngay dégg sa ay naan la làmb wala musique du du kii du nuñ koy xeeti du tax réew mi développé ma ne leen yéen da di yéen ñiy wax loolu amu ngeen xam-xam parce que promoteurs yi tey Gaston Mbengue yor nay employé di leen fay salaire Pa Abdou Fall noonu Fallou Ndiaye noonu Dieye noonu essayant yi dégg Assane Ndiaye ñoom promoteurs yëpp ay ñoom dañuy ñoom ay ñoom ñoom dañuy développer réew mi lig ni ko laay noonu keneen noonu parce que kon yow mi toog ne làmb du def non dañuy loolu wax bu ñàkk xam la ngay wax la parce que ñoom promoteurs yooyu ku ci ne responsable nga ñi yor nañ ay entreprise ñi jiite ay ay kuréel di liggéeyloo ay nit di leen fay kon defe naa ñooñu képp ku wax ne la ñuy def du luy développer réew mi kon yow xamoo lan mooy développement développement xulle du toog ci ay bureau kese nag ay kilim war non loolu du développement développement pour man sur le terrain la da ngay wàcc fa mbir ya ne te promoteurs yi ci loolu lañ tey boo demoon fii dem léegi géejawaay fekk Fallou Ndiaye atelier mu yore ay ay menuis ay kiyam ay soudeur métallique am ay tôlier am ak ay mécanicien nga ne diis tuuti côté ba fekk fa jéey ak alimentation mu yor ay employé di leen fay ay salaire di jaay ay ñam yaa ngi dégg ma la Pape Abdou Fall ku ne xam na ko ak fiara bi ak lam cey def naa sa léegi moom lañ ko dénk xaw ma affaire am lañ ko fa dénk Assane Ndiaye boo fekk ko ca pàkku bool bool ya mu nga ca Baba Diaw borom caam production boo demoon fekk ko atelier fële ca corniche ba mu ngay defar ay lal di jaay ñooñu ñooy bëyru ña làmb ji kon ñooñu defe naa la ñuy def développement la tey Youssou Ndour bu ñu nee du du Sénégal Youssou Ndour ci musique super étoile am boobu xulle ku ne xam na ne tey ci la sampi groupe Futur Média ñaata ni tey xëy groupe Futur Média GFM ñaata ambroya fene mu di leen fay ay salaire kon defe naa ñoo ñuy sànni làmb xeer wala musique naan du tax réew développé pour man xamuñu li ñuy wax mbir mu ne métier boo ca nekkee na sell rek te mbër ya nga xam ne ñoom la ñuy wax mbër ya la ñuy dimbali bu dee ñoom la tamit bëri na trop ci ay doomu aadama wala ñu ngay samp leneen ak leneen kon defe naa li am solo daal nañu ku leen la nga lekk lañ la nga nekk xulli nañ la ko respecteel fexe ñu encadré la mu tege ci aw yoon pour ñu mën koo jariñoo muy njariñu Sénégal loolu la wax parce que dañ koy dégg des fois ci ay rajo ay di ko wax te pour man yenn yi ku koy wax da nga complexé parce que lamb suñu cosaan la ñoo ko moom kon état la ñuy waxaat encore na épaulé promoteurs yi ñu xool nu ñuy def ba organiser ndax corona xamuñu kañ la fiy jógee yàlla rek a xam nekk ni faju nanu moytu nanu mu ngay yokk nag ñu bàyyee ko yàlla jéem a dem suñu activité organisé wu man foofu loolu laa ciy wax ci côté boobu bu nu continuer ci côté séddale xaalis bi nga xam moom la ñu pour jox ko promoteur yi jàk si gis na ne lañ jox ko Abdou Fall jàpp na ne injustice la du yoon parce que 5 millions lañ ko jox te war jàpp ne warul demee noonu loolu nag dama la yéen promoteurs yi yéen neen la da koy waxtaan rek xool liy jaadu ngeen def ko parce tamit comme olof li wax rek ñu bokkuteen ndax xam naa ne jëm na ci combat boo xam ne bu dangereux la ci moom parce li tax mooy dugg na ci biir Pikine tey dugg fa ñetteelu kombaam Ama Baldé daan ko mu war fa dugg ñeenteelu kombaam ak beneen xale boo xam ne mook Ama Baldé ñoom ñoo nekk Pikine muy Boy ñaa muy xale boo xam ne dafa am ci lu mu jóge am fu mu bëgg a dem kon waxuma la monsieur commando Tapha na waaw combat bu rëy koy xaar ndax Boy Niang ku ne xam na ne am na encadrement te am na xam-xamu bëre Tapha nag yaakaar naa kenn du ko présenté ndax ku ne gis na fa mu jaaroon ak Bombardier ak ñoom Elton ak yooyu bi ci des mooy rëg-rëg ba tey mu ngay dànkaafu guy gi rek ne na ko suñu diggante moom dóor mu daanu xaar ko ci ma ne leen waaw loolu moom <laughs> maanaam fi mooy géej jaam na ndox ndax combat dóor la kon yaakaar naa yéen ñaar ku ci ne war nga mën a dóor sa morom mu daan muy combat bu neex Bamba Mbuub itam ñu ngi koy féliciter par rapport yi nga xam ne mu ngi koy def di fexe organiser mbër yi pour ñu am métier ndax gis nañ fi bu yàggul ñoom Ama Ndaw ñoom Caatu Yaraax ñoom Tidiane Faye fexe na ba ñooñu tey ñu ngi nekk ay fonctionnaire de l'État te loolu lépp ci fiis bi la ko jaarale ak waa ministère de l'emploi ñu di ko ci jàppale Bamba ñu koy nuyu du nuyu cuun di di nuyu tamit bi ñu demee Mbour vraiment añ ba neexoon na trop Maysa président CNC war a bokk premier vice président jamaïcain waa Gambie nañ ko moom pour jiite làmb fii moom manta président fédération bi yow néew ca yoon woo ci beneen wi nga ne kon jam xam naa foofu mu wàcce nañ ko karo yi sama rakk jooj maa ngi koy bégee ba tey bu ñu ñëwee ci record gis nañ fa yëglikaay bi ñëw na tey ah ci wàllum làmb jeeg affaire yu ki mel ni ki doon daal Abou Ndour gëstu na ca wan ñu Gaston Balla gay ak Bombardier ba tey ñëw na ci fusion wu Fass ak écurie Ndakaaru Abou Ndour Forza itam joxe na ca la nga xam ne ni daal moom mooy xalaatam loolu ba tey mu ngi ci record ñëw na ci tamit conférence de presse bu Boy Niang war a def suba record ñëw na ci yooyu yëpp muy loo xam ne tey loolu moo fi ñëwoon ah di ngeen xaar tamit ay vidéo ci Equivox Tafa Gueye 2 mu ngi ñëw xaar leen ko très ba am na lu mu wax yaa ngi dégg Jordan ma ma mu bëre loon ca Tamba daan ko Jordan am na lu mu wax Mbour am na lu mu maanaam daal xaar leen ak Equivox rek di ngeen am ay vidéo yu ama am solo xulle di la bëggee di la ñaanal jàmm di wax que ni Sénégal fi yàlla def jàmm di nuy suñu soppe yépp nag Khadiroos Ndiaye borom Allemagne maa ngi lay bëggee tuuti yaay Sarr du ma la fàtte waaye di wax happy birthday to you Asi Diagne ak Fallou Ndiaye ñoom dañ doon fête seen anniversaire le 19 ak le di bëggee di bëggee bépp sénégalais waaye daam ca marché Colobane xulle la muy jaay ci rafet na kenn du moom la ma jox kër macha allah waaye kenn du waa Ndoukoumane Couture ah ñoom faatu Sow ak Cheikh maa ngi leen ñaw rek la ñuy def Rimka Couture borom Touba Sandaga sama général bi ci tëyër yi moom itam du ma ko mës a fàtte hélas di la ñaanal jàmm di ko ñaanal xulle di ko ñaanal alin Badara Diouf di nuyu waa jeune amateur tamit dem woote woon ci jàmm gën ñoom góorandooy muy lam solo ngir làmb gën a jëm kanam waaye daal hélas li ma xam daal mooy nañ ci bàyyi xel ñun ay sénégalais lañ ay africain lañ suñu làmb ji la ñu am bu ñu nañu mukk làmb du développé am réew non non non développement muy kuy liggéey te promoteurs yi ay liggéeykat lañu ay boroomi métier lañu mbër yi kazaalika naka noonu mënaan say noonu ña cay yëngu ñëpp kenn ku ci ne am na activité boo yor di ko doxal ci réew mi yor ay ampoule waaye kon encore une fois nañu nangu nekk ñun li ñu doon loolu moo ñuy dimbali ñun duñu ay tubaab ay africain lan ay sénégalais lañu xulle kontaan ci yow.